Cheikh Moustapha mi nga xam ne sama turandoo xama sant yàlla ci tudd gi ñu ko bisam day tay jii muy doon jëmm joo xam ne kon dama ci seede seede su gàtt rek ndax eh, moom daanaka lu soxel jot rek waaye waajalu ma woon dara dama ne woon sëñ Moustapha nañu ma jégal rek ci ci doonoon na jëmm joo xam ne ni ko sëñ Abdul Xaadir Mbàkke daa ma waxee ne sa turandoo lu ñu wax ci moom ci baax bàyyi nañ ci dara waaw loolu la loolu la ma daa sa turandoo lu ñu wax ci moom ci baax rek bàyyi nañ ci dara noonu la ko yàlla bindee woon doonoon na koo xam ne boo ko doon melal dangay wax ne ku fees bopp la woon loolu doy na ci seere guddik talaata gi muy indi sëñ bi fii nga xam ne biñ koy yëg dix heures ci guddi war naa jot diggante boobu ku ci mën a lijjanti loolu ba ba lépp mën a taxaw bañ mën a indi sëñ bi ba mën a toppatoo lépp ba fajar laataa jot loolu ca waxtu woowu ku xam ni jamono ji demee woon booba danga xam fees bopp sëñ Mourou Moustapha ndax booba mosuma di gis sëñ mu ne ma laaj naa ko ne ko ne ko waaw booba moom loolu noo ko defee noo ko mu ne ko booba de damaa xam ne fu tiis di àgg ma yor naa ko waaye nag damaa damaa xam ne sëñ bee yoral boppam mbiram ma jóg rek dox jëm ci loolu <laughs> lépp daal di daal di daal di léegi bu ko defee nag nga xam ne kon moom am na lu daje woon ci moom lu jafe mooy bopp fees dell ànd ak ak ak ak ànd ak ji ba siiratu waaw maanaam li ñuy vision ku amoon gisu xol ndax ba muy laaj titre foncier bi ci dëkk bi loolu boobu yëngu ba amutoon gis-gis xelit néew na loolu mu ànd ak fit ku amu fit la ndax bu amutoonu fit jumaa ji rek doy na ci firnde jumaa ji ci waxtu woowee xadd ko ak mboob rek yombut jiim ko fetañ rek yombut ku am sa xel di xalaat di ko xëcc muy ma téeméeri mètre ci waxtu woowa te booba ab dërëm mënta am fenn ndax seex yi gën a naw booba leen sëñ Modou Moussa sas muy mel ne sëñ Modou Diop Moussa yooyu mooy juróomi junni juróomi junni la sas yi gën a dang booba foofu la tolloon kon xoo kooku xam nga ne gis gisu euh, loolu moo lay tegtal aw fitam ku am fit la ku am xel la la ca dolli ko nag mooy ku ku teeyoon la tanangoo diisoo daf daa wax ne bu ma juumee rek mbooloo juum loolu loolu la daa wax ndax sëñ Modou Gelangel daal ma ko nettali sëñ sëñ Modou saa balaa wax dana tegale ay guddi yoo xam ne ku ne dana wax ak yow bu waxee ñoom ñëpp nag mujj sëñ Basiiru waaye sëñ waaye dana wax ak sëñ Omar Mbàkke Gelangel ak sëñ Sëtu Jaxateek sëñ Bay Jaxateek sëñ Laay Jóob leew naag mag ñooñu noonu nga leen di toppe bañ doon groupe boo xam ne ku ne dana la wax ne waaw mbir di sàngam di laar mu xalaat ba xam yow dama xam lu ci sa xalaat bu ñëw ñëpp dajee xel yooyu mujj sëñ Basiiru ne ko yow lu ciy sa xalaat diw di doon na wax nangam waaye diw di doon na waaye yow li nga wax rek laay ci laay ay laay def loola dara fas loolu taxan na yàlla dimbali ko ba du ba du juum moo tax ma ne fu ma juumee rek mbooloo juum amoon na xikkam lool te mën a te mën a am xikmatul man koo wax lool bokk na ci xikam yi mu daa wax ma jëlee ko ci mag ñi dadaa wax ne nit bu la nit bu la bu fekkee yemalewu laa kenn nga yemale ko ñëpp boo yeexee mu ëpp la mbor <laughs> seetal loolu boobu xikam rek daana waxee ne nit bu la bëggee nang nang koy mayu lay seet beneen xikama ngoog dégg naa ci sëñ Abdoulaye mu ne sëñ Mourou Sa mos na ko wax ne ko yet yet maa ngi la koy digal mu ne ko yet mu ne ko bala kilifa jegeelee jegeelee boppam na nga koy wattandiku ci yet mbóotam moom génneegut ak alalam ju yees ju ne ak gan kum fonk <laughs> na foofu bokk la xam ne antum bi xëy na asalaamaaleykum taxam sëriñ bi ne nañ la jox kàddu feeñ na ci jotaay الحمد لله رب